weeru yonantu bi la ramadaan weeru xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am bul fàttee cliquer si abonné ak si cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti dool nga mën ko njëkk am guddi ñaar fukkeel ga ak juróom ku ca julli juróom ñett rakka bu ci ne faatiya ak qul huwallahu ñeenti yoon bala moo jóge fa mu ko doon jullee des na ko jéggal bàkkaaram yépp te yàlla du ko mbugal mukk حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرجا